asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyi ko ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu alxames fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février mi nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj ci ñaari junni ak téeméer ak ñaar ak juróom test yi ñu def ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif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 Dakar région de Dakar am na ci téeméer ak ñeent téeméer ak ñeent te ñoom téeméer ak ñeent yooyu buñ leen tasee aussi ci gox yi nii la tëddee fukk ak juróom-benn ci Rufisque fukk ak ñett ci Dakar Plateau juróom-ñeent ci Diamniadio juróom-ñaar juróom-ñaar ci Liberté 6 juróom ci Médina ak Ouakam ñett ci cité millionnaire Mariste Ouest Foire Parcelles Assainies ak Sicap Baobab ñaar ci almadi fas Mermoz Sicap Mbao Zac Mbao ak Sangalkam benn ci Bène Tally Cambérène Cité Taco Résidence Grand Dakar Grand Mbao Grand Yoff Guédiawaye Gueule Amo 5 HLM Las Palmas Ngor Patte d'Oie HLM Point E Sacré-Cœur Sicap Foire Yarax Yoff ak zone de captage am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci région yi ñooñu tamit seen lim nii la tëddee am nañ ci ñaar fukk ci Mbour fukk ak juróom ci Thiès juróom-ñett ci Louga juróom ci Kaolack Popenguine ak Saint-Louis juróom ci Sokone Tamba ak Touba ñett ci Diourbel ak Kër Massar ñaar ci Ndofane ak Ziguinchor benn ci Bambey Bunkiling Kaffrine Kédougou Kër Momar Sarr Xombol Maka Koulibantang Malika Matam mexe ñaxaar pasi ak puut ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wala ñi nga xam ne ñu leen toppoon ci biir kër yi wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukk ak juróom-ñaari malade ñoo nekk réanimation fukk ak ñaar malade ñoo génn ñoo génn àdduna bésu démb alarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñu ngi xam ne ñi leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak ñaar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-benn ak ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent si lalu hôpital yi ak si ci ñi xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère la santé l'action sociale mu ngi ñaanal ñoo ñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñoo ñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bos bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci mbir yi di sol seeni masque ni mu waree masque dafa war a muur yémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo saa su nekk di jëfandikoo ndox ak saabu wala di jëfandikoo tamit gel yu ànd ak qualité di teel a dem dispensaire wala hôpital bi leen gën a jege wala di jokkoo ak seen docteur saa bu ngeen nemmee ko yaram bi dafa xaw a sutante ministère la santé de l'action sociale muy leen di sant di leen gërëm wasalaam